mbokk internet yi dal leen ak jàmm dalate leen ak jàmm mën nañu nag leader bi nga xam ne rek moom mooy Ousmane Sonko niki mu nag eh, direct ba nga xam ne rek ma ngi ko doon amal ak kàddu yi nga xam ne rek jot na koo yëkkati mën nañ ne nag daf kaa daal di def comme ni mu ko daan faral di defee rek bi la yoon nag dafa mel ne koo xam ne rek dafa daal di bañ a topp nguur ci décision yi nga xam ne rek jël na ko ba tax naka mu ne du forcer lenn nekkat day daal di woote rek comme ni mu ko daan defee rawatina nag concert de casserole bi nga xam ne rek ki tey ci samedi ji rawatee na képp koo xam ne rek mën nga ne leader nga ak koo xam ne rek yaa ngi yeewoo ci réew mi nga fexe ba ut yu xonq yoo xam ne rek danga koy daal di sol bu dee mbaxana mu xonq baax na dàll yu xonq baax na euh, kurus gu xonq baax na euh, yére bu xonq baax na tubéy ju xonq baax na moom mii di président Ousmane Sonko xam ne li ni mel nekkat képp ku nga xam ne rek jamono bii ñu toll nii mën nañu mbir mi metti na la euh, jaral na la tamit sa réew mii di Sénégal na nga daal di def li nga xam ne rek moom mooy sa kéemtalaay kàttan pour nag ñu fexe ba daal di dénoncer acte de barbare bi nga xam ne rek am na ci réew mii di Sénégal ci jamono bii ñu toll nii loolee mën nañu nekkoon li nga xam ne moom moo gënoon fees